association pour l'unité et la solidarité sociale Diapel ma jàpp nekk ci Montagne 5 ak sen njiit ba Mamy Camara de suñu ginnaaw benn yoon ci xexum jangoro bi di coronavirus ñom nak daal dinañu jébal askan wi lu ci mel ay masque gants ak ay produits détergents et hydroalcooliques. tay suñu taxaway fi ci yarax moy mouvement bi muy jigen ñi muy jeunes yi muy mag ñi muy ndaw ñi ñëpp mobiliser wu juk taxaw pour xeex jangoro bi nga xamante moy coronavirus ñu xalaat ne nak loolu lan lañ ci mëna duggé yalla mayon nañu am nañu ça fait 2 ans def ay formation savonnerie des formations ci eau de javel def formations ci friser légumes et tout tay nak bi nga xamante ne xeex bi dugg mouvement bi tok waxtaan teunku sen kàddu ne pourquoi pas comme dëkk bi yépp li ñuy wax mooy set ak propreté lan lañu ñu war a mën a apporter ñun tamit suñu communauté ñu ne ñëw leen ñu dugg ci eau de javel bi dugg ci savon bi dugg ci gants yi dugg tamit ci li nga xamante ne mooy masque yi jàppale ko suñu population parce que tey ñun dañu xalaat ne population bi gën a vulnérable tey ci Sénégal mooy jaaykat yi ñun tamit suñu cible tey dafa nekk uniquement jaaykat yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd bi mooy jaaykatu taabal bi mooy jaaykatu ndékki bi mooy jaaykatu restaurant bi même jaaykatu gerte cax bi toog te amul lu ko protéger tey suñu mouvement muus ñun loolu moo nu motiver yëkkati ñu pour ñu ne nañu jug taxaw xeex ak jàngoro bi xeex ak coronavirus xeex li nga xamante ne moo moom la kilifay dëkk bi teg te ñun ñëpp ñu ànd ci tàllal ci suñu loxo. parce que yaakaar naa ne lii balaa la bu yàlla wàccee yàlla rek moo ñu ko mun a dimbale mais nan la ñu war a mun a def mooy ñu protéger wu ni ñuy protéger li ci ëpp solo gants yi def ci am solo maski yi ci am solo masque am na ci solo bu baax a baax a baax saabu ordinaire bi nga jël ko di ko raxasoo eau bi ñu koy raxasoo tekk suñu buntu kër yi xale yi bu ñu génnee ñëw nañu raxasu eau ak saabu ba seen loxo yi set xale yi bala ñoo lekk nañu raxasu eau de javel ak saabu muy même mag yi parce que dañ ne jaaykat yi ñun bu ñu jëlee eau de javel bii tey teg ko seen loxo c'est pour que jaaykat bi teg ko ci place am xóoyal teg képp ku ñëw balaa muy sekkeeg yow dara sax mu yëngal loxoom ci eau de javel bi raxas loxoom toog wax yor gants yi nag sol ko parce que gants yi tamit da leen di protéger. moom nag mu ngi woo bépp autorité boole si di ñaax askan wi yépp ñu jàpp ci bile jàmmarloo ndax corona mën fi jógee. ñi nga ne autorité commune bi le maire de la commune ñu ñaanal parce que gis nañ action yi mu def ci biir commune bi li ñuy wax rek mooy yàlla na yàlla xeeb mu di les bonnes commune bi y a pas mal de leaders qui sont là dans cette commune il est temps que ku ci nekk ci ñun pour que mu parce que askan l'heure est grave li war mooy acteur na réunir ñun bokk ndey bokk baay xeex coronavirus tey yaakaar ne ku mu ci doon ci ñun am nga loo mën a combattre am nañu li nga xamante ne kenn gisu ko kenn xamu ko te kenn xamul lu koy faj tey suñu soxla suñu xalaat képp kuy doomu yaraax ci loolu nga war a def sa xel.